asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV bi daleen si jàmm si kër gi mbokk yi ñu ànd ak ci xibaar yu bés bi ngeen ànd ak Omar Tunkara ci boppu xibaar yi mbokk yi His Excellency yi président Adama Barrow moom naka digg na ne dina sos ah, benn commission bi nga xam ne dinañ def ab gëstu si la jëm ci wàllu projets yi nga xam ne nag ñu ngi koy boon fële ca li di tund si aaral lu aju ci wàllu li di mbay mii OIC Gambia nag eh, seen seeni kilifa bi di Yankuba Diba moom nag eh, tukki woon na dem fële ca Pakistan ci tukkeem boobu demoon na foofu am ab daje ak li nga xam ne nag moom mooy réew jiliti seen kilifa yi fa teewoon mu sàkku leen nag ab ndimbal ci li jëm ci wàllu ndaje bi ñu war a defar ci réew Gambia benn tey ci lu aju ci wàllu OIC bi la ñuy des ndaxte nag yoon yi nga xam ne war nag war nañ ko defal ci réew Gambia am na Gambian si nga xam ne nag wax nañ si seen i xalaat parce que dina am nag euh, tuuti euh, dina am ab ab design bi nga xam ne nag dina ko wàññi ci di tali bi parce que nag jàpp nañ tali bi dafa xat waaye xat-xat boobu nag nee nañu euh, defaree nag ñaari mbedd yi nga xam ne nag OIC ñu ngi ko diggee amaana loolu dina ko wàññi. xibaaru biti réew yi nag fële ca li di Ghana fu mu toll nii ibbi nañ seen i yi moo xam muy géej gi wala boog suuf si Euh, pour nag mun a doole seen i koom-koom bi waaye tamit ci li nga xam ne nag moom moo di di euh, Zimbabwe seen opposition parti bi nag am nag na opposition bi am nañ ndam boo xam ne ñoom seen bopp sax séntu wuñ ko woon waaye nag ñu ngi téye seen bopp parce que jàpp na ne ba léegi am na ay coppite nga xam ne war nañ koy def si lii di sarta euh, nga xam seen réew mbokk yi ak yeneen xibaar daal la ñu ànd ak yéen ci yaatal gi